ñu suñu wàllu bopp lu nu gëm mooy dafa doy ñuy naan nañu dimbali jigéen yi les femmes sont nos partenaires de vie les femmes doivent être au cœur du combat pour le développement du Sénégal ce n'est pas pour rien nous avons prôné la banque pour le développement des femmes moo waral buñ ko waxee ku nekk di ñu toppandoo mais tout le monde sait que la pertinence et l'originalité de cette idée, c'est la coalition Diao 2024 qui l'a développée. Notre compagnonnage avec les femmes sénégalaises ne s'arrêtera pas là. Nous devons arrêter cette injustice que subissent nos jeunes filles dans les écoles, où les situations de vulnérabilité sont connues et elles sont une cause d'échec scolaire. dafa jekkatul au vingt et unième siècle di nekk ci ay écoles yi nga xam ne amuñu toilette donc ça ce sont des engagements fermes que nous prenons pour que notre installation à la tête de ce pays cette question de vulnérabilité de nos jeunes filles l'école soit réglée définitivement. Notre combat pour l'émancipation des femmes passe par un engagement ferme et irrévocable d'une parité stricte. S'il y a un gouvernement de 30 ministres, il y aura ministres hommes, ministres femmes. Il est temps que les femmes soient de vraies actrices de développement dans moi, je m'engage avec toute la coalition pour que toutes ces questions de pénibilité dans le monde rural, que vivent nos femmes, soit une question qui sera derrière Rabbi. Kenn du jëlati jigéen Sénégal di ko teg ci seret naan da nga yóbbu hôpital di wasin li war ci matuwaay ci wàllu wér-gu-yaram ak gunge leen ci seen doom pour que ngeen bind taxawal mat sëkk fu ñuy nasee di noccee fu ñuy fexewee pour yi di nasal góoru Sénégal yi vous avez les compétences vous avez le leadership et vous avez surtout le sérieux qu'il faut pour que le Sénégal qui vient soit le Sénégal de la pleine expression du talent et du potentiel de la femme sénégalaise. Le travail continue. Jërë ngeen jëf. Salaamaaleykum.